Bonjour, euh, fidèles auditeurs et auditrices euh, de Réumi FM. Bienvenue dans votre émission Encre la Plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9 à 10 Et nous recevons ce matin euh, Ibrahim Andoui. Il est le coordonnateur des écoles à institut de l'Université Charente Diop de Dakar. Il est également membre du collectif euh, des amicales de l'UCAD. Monsieur Ndoui, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour à vous, Sylvie, Euh, votre, vos ondes FM Réumi. Et euh, je vous remercie aussi de nous avoir conviés afin d'échanger sur les questions de l'heure concernant l'université. D'accord. Euh, peu de vous. Qui Ibrahim Ndoye euh, d'abord, je viens d'Hambourg. J'ai eu mon bac à Rufusque euh, et j'ai réussi un concours d'entrée à l'Institut de la gouvernance territoriale et de développement local, qui est un institut qui forme des agents de développement local. Créé depuis 2016, je suis actuellement étudiant en gouvernance euh, territoriale et services publics, Master 2. Et aussi, euh, depuis deux ans, euh, par la grâce de Dieu, mes camarades ont porté leur choix sur ma personne pour diriger la coordination des écoles et instituts. Et depuis deux ans, nous faisons partie du collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta de Dakar, qui est la structure mère qui regroupe l'ensemble des amicales légalement constituées de l'Université Cheikh Anta Diop de, Dakar. Mmh. Euh, parlez-nous un peu euh, du des écoles en institut de l'UCAD euh, et du collectif euh, des amicales de l'UCAD. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi euh, ce collectif déjà? Bon, je pense que que ça soit le collectif ou bien la coordination des écoles instituts, leur objectif euh, commun, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, de prendre en charge les préoccupations de la communauté estudiantine et d'essayer de trouver des solutions pour ces derniers pour une amélioration de nos conditions de vie au sein du temple La coordination des écoles et instituts est une structure qui regroupe l'ensemble des écoles et instituts de l'UCAD, c'est-à-dire des établissements qui dispensent des enseignements professionnels. Notre différence entre, c'est-à-dire l'enseignement général, c'est que nous, nous sommes des professionnels, nous sommes opérationnels à la sortie de notre formation, que ce soit en licence ou bien dans le cycle d'ingénierie. Et euh, au niveau du collectif, collectif, c'est-à-dire nous avons plusieurs établissements à l'UCAD et plusieurs amicales. Et nous avons jugé nécessaire des solutions commune à notre lutte, nous avons jugé nécessaire de nous regrouper en un collectif, ce qu'on appelle le collectif des amicales de l'UCAT, qui regroupe, comme je l'ai dit tantôt, l'ensemble des structures légalement constituées de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui portent la voix des étudiants, parce que nous avons été élus pour cela. Et comme vous l'avez eu à le constater, à chaque fois que de besoin, que les étudiants sont à difficulté, le collectif se porte le combat, essaye de diligenter la situation pour trouver une solution définitive au problème qu'est confronté aux étudiants. Euh, comment se passent euh, les élections des amicales euh, Est-ce que ça s'est déjà passé et comment ça s'est passé Bon, je pense que c'est en La coordination des écoles et instituts a renouvelé, de médecine a renouvelé, de même que la faculté de sciences et la phase qui de terminer hier. pense que c'est en cours je pense que le 4 mai, Inch'Allah, mm -hmm. avant le 4, le 27 la faculté des lettres va renouveler et la faculté de droit le 4, ainsi de suite. Euh, la situation va suivre normal l'ensemble des structures là vont, vont, vont renouveler une à une et pour, euh, comment dirais-je, redynamiser le groupe. Redynamiser, parce que nous sommes élus pour un mandat d'un an. Après un an, nous sommes obligé de renouveler les structures là pour être légal et légitime. Mmh. Et tout se déroule normalement, il n'y a pas de violence Bon, euh, certes, le syndicalisme, des fois, euh, nous sommes taxés en tant que syndicalistes de violents, mais je pense que les syndicalistes aujourd'hui, comme vous avez eu à le constater, il y a une accalmie au niveau, niveau de l'université Anta Diop de Dakar. C'est-à-dire, il y a un changement de paradigme, un nouveau type de syndicaliste que nous essayons d'instaurer à l'université, un syndicalisme de proposition. Aujourd'hui, si on parle de la violence, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce n'est plus le propre des syndicalistes, mais le propre des hommes politiques. Parce que depuis trois ans, je, je veux dire, nous essayons de conscientiser, de parler à la masse étudiantine pour leur dire qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'intellectuel, c'est l'argument qui doit primer au lieu de la force. Nous devons nous arranger de telle sorte d'organiser des débats d'idées Certes, on peut avoir des divergences, mais des débats contradictoires pour ne pas en arriver à la violence physique. Et c'est ce que nous sommes en train d'installer à l'UCAT et par la grâce de Dieu et l'accompagnement des autorités universitaires, je pense que euh, le paradigme est en train de changer et la violence est en train de disparaître au niveau du syndicalisme universitaire. D'accord. Merci beaucoup Ibrahima Ndoye pour cette euh, présentation de vous et du euh, collectif. Euh, je rappelle que vous êtes coordonnateur des écoles instituts de l'Université Cheikh Anta de Dakar. Vous êtes également membre du collectif des amicales de l'UCAD. La hausse des prix des denrées de première nécessité n'épargne pas aujourd'hui les boutiques au sein du campus. Qu'en est-il réellement? Bon, c'est une euh, situation qui est réelle et je pense que cela ne date pas d'aujourd'hui, avant même la flambée des prix au niveau national due à la conjonction économique. Euh, bon, nous avons constaté une hausse des prix, que ce soit des denrées ou bien, c'est-à-dire euh, les pains-tons ou autres, les sauces que nous achetons au niveau de ces boutiques-là. Et je pense que je salue l'initiative de l'ensemble des sociétés civiles qui ont des démembrements au sein de l'UCAT, qui ont commencé par lancer alerte. Nous aussi, en tant que représentants d'étudiants, euh, nous avons jugé nécessaire aussi de jouer pleinement notre rôle. Et ceci euh, étant constaté, nous avions interpellé le COUD, de même que le COUD aussi était dans, sur le dossier. Mm-hmm. Et par le touchement du COUD aussi, une réunion tripartite a été organisée entre nous, les représentants d'étudiants, le collectif des amicales de l'UCAT, l'association des boutiquiers euh, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi l'administration du Court qui jouait le rôle d'arbitre. Nous avons relaté les faits, nous avons relaté des faits parce que ce que nous avions constaté, c'est qu'en sortant, allant dans nos quartiers ou bien au, dans les boutiques environnant du campus universitaire, les prix étaient plus bas qu'au niveau de l'université. Alors que nous savons que, c'est-à-dire euh, normalement les devait, ça devait être Parce que par rapport au débit de vente, c'est-à-dire le délai d'écoulement de leur, de leur produit est plus rapide au comme le lait, des laits qui coûtaient 125 en dehors de l'université, on a constaté que ça coûtait 150. Du printemps qu'on pouvait acheter moyennant 200 francs de l'université, on le vendait jusqu'à 300 francs. Et suite à ces de même qu'au aussi des transactions, des, des, des, que ce soit les étudiants rencontraient des difficultés. C'est-à-dire, ils voulaient venir récupérer mais les boutiquiers leur refusaient cela par comme motif qu'il dégageait, c'est qu'il n'y avait pas de monnaie à ces heures-là. Et toutes ces questions ont été abordées. Eux, de leur côté, ils ont reconnu qu'ils ont fauté et que les prix étaient plus ou moins cher au niveau du campus et un barème sera proposé et nous sommes en train de réfléchir sur ça. Nous, de notre côté, nous proposons les prix qui viennent de dehors, mais aussi nous les avons sensibilisés. Vu à votre délai d'écoulement de vos produits, les prix peuvent être plus bas. Et vu que c'est une association, ils, vont, ils sont en train de discuter sur ça et après ils vont nous revenir avec le barème, on va en discuter et nous, en tant que collectif, avec l'arbitrage du coût, nous nous chargerons euh, de faire, afficher l'ensemble de ces barèmes-là au niveau des entrées de l'université, au niveau des boutiques, pour permettre une équité et une justesse des prix au sein du campus social. D'accord. Euh, vous avez pu tenir une réunion avec l'association des boutiquiers. Est-ce que vous êtes euh, tombé d'accord sur un accord Oui, effectivement, c'est ça. Nous, avons, nous sont sortis de cette réunion, c'est d'abord le fait de réajuster d'une manière automatique les prix mhm. euh, pour que cela revienne à la normale, mais aussi que l'autorité de régulation des prix au niveau du ministre du Commerce a été interpellée aussi pour qu'ils viennent faire, ils l'ont commencé depuis l'année dernière, mais qu'ils intensifient les contrôles au niveau des, euh, boutiques là, les contrôles des prix, mais aussi, euh, c'est-à-dire un comité ad hoc sera mis en place qui permettra d'échanger restauration universitaire. Nous nous réunissons par quinzaine ou bien euh, une fois euh, le, mois pour permettre de discuter de la prise en charge des étudiants, les difficultés au niveau des restaurants. Nous allons copier ce modèle-là et le faire avec les, boutiquiers. Et je pense que ça, c'est acté. Et ce qu'il reste à faire, c'est de sortir ce barème-là qui nous permettra de communiquer avec l'ensemble de la communauté étudiantine. D'accord. de manière générale, euh, quelles campus Bon, nous, en tant qu'étudiants, nous faisons face à beaucoup de difficultés qui sont liées des fois d'ordre financier, mais aussi des fois d'ordre social. Et je pense que d'ordre pédagogique aussi, d'ordre pédagogique aussi. Mais le problème est le plus saillant, c'est d'ordre social, mais causé par un problème d'ordre pédagogique. Je m'explique. C'est-à-dire, d'année en année, le nombre d'étudiants orientés à l'université ne cesse d'augmenter. Alors que, euh, c'est-à-dire euh, la capacité de prise en charge des étudiants n'est pas au même niveau que cette, euh, c'est-à-dire cette euh, euh, cette accélération du nombre d'étudiants qui, est à chaque fois orientée à, l'université. Ceci fait que nous faisons maintenant plus de 10 fois le nombre de lits disponibles au niveau de l'université chez Anta Diop de Dakar. Toutes les campus réunis ne dépassent pas 10 000 lits une capacité d'accueil de 10 000 lits, l'ensemble des campus sociaux réunis de l'université Anta Diop de Dakar. Alors que si toutefois les inscriptions sont terminées, l'université, nous étudiants, nous tournons Donc nous faisons plus de 8 fois le nombre de places disponibles pour être logés. Alors que nous venons tous de contrées très lointains, c'est-à-dire euh, de Mbour, que ce soit de Kaulak, Tambacounda, Jigenshore. Et nous devons, venant à Dakar, le loyer est très cher. Nous venons de familles modestes. Nous ne pouvons pas peut-être assurer l'ensemble de nos besoins primaire et aussi essayer de se loger. Raison pour laquelle il y a ce problème, ce déficit, ce manque de logement clair au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et ceci aussi est un problème central lié par un problème d'ordre pédagogique. Aussi sur le plan pédagogique, nous avons un problème, c'est-à-dire il y a beaucoup d'établissements de l'UCAT. Je prends l'exemple de l'IGT ou bien de l'UPA que je maîtrise bien, qui ont un problème de salle, salle de classe convenablement le, leur cours. Des fois, les étudiants sont obligés de faire des navettes, quitter un établissement de l'UCAT pour rallier un autre établissement de l'UCAT afin de faire leur cours. Et cela impacte aussi sur, euh, c'est-à-dire le planning ou bien le calendrier universitaire qui ne permet pas de terminer à temps. Donc, c'est un problème d'ordre pédagogique. Mais aussi, nous avons constaté aussi euh, ces dernières années une diminution de la prise en charge des bourses sociales. Mm. C'est-à-dire, y a ces étudiants-là qui n'ont pas la moyenne requise pour avoir une bourse entière ou bien des fois sont confrontés à des situations qui font qu'ils reprennent des années et automatiquement, automatiquement ils perdent leur bourse. Et ces derniers devraient être recasés sur les bourses sociales. Mais ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est un, une réduction drastique du nombre d'attributaires, c'est-à-dire des étudiants bénéficiaires de ces, de ces bourses-là. Et l'année dernière, cela tournait entre 2000 bourses pédagogiques bénéficier de ces bourses, bourses sociales-là. Entre autres, bon, ce sont les problèmes d'ordre général que nous rencontrons au niveau de, de l'université et que nous, en tant que représentants d'étudiants, nous nous attelons à trouver des solutions pour permettre euh, à l'étudiant de se retrouver dans son droit. Euh, des problèmes d'orientation Oui, cela existe, cela existe parce que dès l'instant, bon, peut-être euh, nous ne sommes pas trop dans Chaque année, il y a un collectif des étudiants non orientés qui, euh, bon, qui est mise en place par ces concernés-là, parce que nous, de notre côté, c'est central, c'est un peu centralisé, cela ne dépend pas de l'UCAT. Par exemple, l'université, euh, cette année-ci, je pense que nous allons prendre 13 000 étudiants. 13 000, 13 000 étudiants contre des années où presque on prenait entre 15 000, 16 000, 17 000, 18 000. Ceci est dû à la création de plusieurs universités, mais l'orientation au niveau des ISEP. Mais ces étudiants-là non orientés sont plus concentrés au niveau, c'est-à-dire le problème est plus concentré au niveau du ministère qu'au niveau des universités parce qu'il y a une commission nationale qui est logée au niveau du ministère, mais c'est quelque chose que nous au fur de l'année qui ne sont pas orientés. Certains sont dus à leurs erreurs personnelles, c'est-à-dire une incompréhension de la plateforme campusienne. D'autres aussi, c'est un à un manque de place au niveau des universités parce qu'il y a un summum qui est atteint ou bien un seuil qui est atteint et ceci ne permet pas aux universités d'accueillir plus d'étudiants. Mm-hmm. Et vous me permettrez à travers ces questions aussi de lancer un appel fort. Je pense que nous le répétons des conseils d'académiques euh, qui s'organisent chaque année, nous interpellons les représentants du ministre pour leur dire que nous devons organiser des assises au niveau national pour parler de l'enseignement supérieur, de l'orientation des bacheliers au niveau, au niveau de ces campus-là. Parce que, quel que soit Alpha, on, dès l'instant qu'on obtient son bac, on veut être orienté dans une université publique, on veut poursuivre ses études supérieures parce que presque on a fait plus de 11 ans, 12 ans être orientés au niveau de ces universités. Mais le problème aussi, c'est que la capacité d'accueil et les infrastructures pédagogiques doivent être euh, au niveau de ces universités-là pour permettre d'absorber ce nombre d'étudiants qui ne cesse d'accroître d'année en, année en année. Mm-hmm. Et raison pour laquelle nous lançons un appel fort aux autorités que l'on puisse organiser des assises au niveau national pour parler des problèmes des étudiants le plan pédagogique et essayer trouver des solutions définitives qui nous permettront à chaque année que les universités là puissent absorber le nombre d'étudiants, quel que soit le taux de réussite au niveau du bac, que ces universités là puissent absorber ce nombre d'étudiants. Mais est-ce que vous avez pu écrire un mémorandum le soumettre aux autorités? Effectivement, et je pense que l'accalmie que vous constatez au niveau de l'université est due à cela parce que nous avons essayé nous avons préféré à chaque fois que des problèmes sont constatés ou bien d'une manière annuelle de faire un mémorandum. Je pense qu'il y a de cela presque vers le troisième jour du, du, de Ramadan. Sur le plan social, le mémorandum a été exploité et un plan d'action a été dégagé. L'année dernière, notre mémorandum, nous avons de satisfaction par rapport à la réalisation. Parce que ce que nous faisons, le terrain. Mm-hmm. Nous allons vers les étudiants, vers le plan pédagogique, nous une enquête exhaustive des problèmes que les étudiants sont confrontés. Mm-hmm. Et nous cest euh, de mettre ça sur que nous mettons à la disposition de l'autorité. Par exemple, je prends l'exemple du COUT, euh, la réunion dont je vous parlais. L'ensemble des chefs de département et des services techniques ont été conviés et à chaque point, et la réunion a duré de 11 à 19 Nous avons même coupé là-bas, la rupture, nous l'avons fait là-bas. À chaque point, chaque problème qui est soulevé, il y a un responsable qui est désigné pour la résolution de ce problème ou bien le chef de département pour la résolution de, problème, de ce problème. Nous, les avons, nous leur 15 jours, un mois, en fonction du problème, c'est-à-dire euh, les capacités ou bien les ressources à mobiliser pour résoudre ce problème-là, un délai raisonnable. Et arrivé à ce délai-là, avant ce délai, on fait l'évaluation, on voit qu'en est-il, le taux de réalisation, est-ce que cela a exécuté ou bien cela a été satisfait totalement. Et sur ce principe-là, on est arrivé à avoir l'année dernière et nous comptons euh, faire le suivi cette année-ci parce que le mémorandum a que c'était le à cause de la fête et quelques problèmes dus sur le plan national que ça soit d'ordre politique cela ne nous a pas permis de nous réunir mais au retour de la fête nous allons nous réunir et faire la première évaluation D'accord. Mhm. Euh, Monsieur Ndoye, la violence euh, dans l'espace universitaire, euh, on en parle. Mhm. Euh, pourquoi euh, vous, étudiants, vous faites toujours, faites-vous toujours recours à la violence pour régler vos problèmes, que ce soit des questions de bourse, non payées, retard de paiement, entre autres, vous réglez toujours par la violence mhm. et vous attaquez les, dém les, les démdiques surtout. Bon, euh, sincèrement, nous sommes désolés. Hein, nous sommes désolés que les étudiants soient taxés de violents parce que nous ne le sommes pas. À chaque fois que vous voyez les étudiants sortir au niveau de l'avenue de Diop, c'est-à-dire, sachez que c'est notre dernier recours. Et ce qui est désolant, qu'à chaque fois que nous sortons au niveau de l'avenue de Diop, nos problèmes sont réglés. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est-à-dire, nous faisons l'ensemble des démarches nécessaires. Nous contactons l'autorité, nous écrivons à l'autorité tout ce que nous devons, l'ensemble des voies administratives. Si vous nous voyez sur l'avenue c'est que l'ensemble des voies administratives ont été épuisées et nous n'avons pas eu gain de cause sur notre problème. Raison pour laquelle nous descendons sur l'avenue Chante C'est notre dernier recours. à chaque fois que nous sortons Donc, le problème ne se situe pas au niveau des étudiants, c'est-à-dire on amène les étudiants à sortir on au niveau. on nous pousse à, à, faire ça. Je ne sais pas le pourquoi. Peut-être les autorités pourront nous édifier sur la situation parce qu'on ne comprend pas. On épuise l'ensemble des moyens de recours pour avoir satisfaction à notre problème. Et si toutefois nous n'avons pas eu solution, donc l'étudiant essaye de se retrouver dans son, droit et pour leur dire aussi que doit de se retrouver dans, son droit. Mais c'est quelque chose que nous regrettons parce que, quel que soit Alpha aussi, nous devons être compris et que si toutefois nous mettons des préoccupations sur la table des autorités, ils doivent chercher à trouver des solutions. Nous ne sommes pas difficiles, nous ne sommes pas difficiles. C'est-à-dire, ce que vous nous dites, faites cela et il n'y aura pas de problème avec nous. D'accord. <laughs> Euh, selon vous, quel est le À l'état actuel, moi, je me dis le rôle de l'étudiant au niveau de l'université, c'est d'étudier. Le rôle de l'étudiant au niveau de l'université, c'est de prendre soin de son cadre de vie. Le rôle de l'étudiant, je me dis la finalité, c'est de réussir. Et C'est pour cela que nous, en tant que représentants d'étudiants, nous empruntons notre bâton de pèlerin en jouant le rôle de pacificateur au niveau de l'espace universitaire, tout en permettant aussi aux étudiants de trouver, c'est-à-dire d'être dans des conditions optimales pour réussir leurs études. Parce que, c'est-à-dire le maître mot au niveau de l'université, pour moi, cette, euh, ces, ces, années, ça doit être la stabilité du campus. Parce que, c'est-à-dire, nous, on ne peut pas faire l'évaluation. Peut-être l'étudiant qui ne fait pas des concours ne pourra pas faire l'évaluation. Regardez, depuis trois ans, ou bien depuis ces cinq dernières années, parce que c'était un échange à avec Khalifa, Khalifa Diagne, le directeur adjoint, qu'on a pu à décerner tout ça. C'est-à-dire, il y a de cela cinq ans derrière, derrière nous. L'ensemble des concours, les autres universités, battez l'UCAD au niveau de ces concours que ça soit au niveau nous en tant qu'étudiants ou bien les professeurs que ça soit l'agrégation ou bien les concours de douane les concours de magistrature les concours d'ENA c'est-à-dire les étudiants de l'UCAD étaient relégués au second plan ce qui ce qui dû à cela sont terminés par nos programmes c'est-à-dire on n'avait pas l'ensemble des bagages ou bien des atouts qui nous permettraient de réussir à ces concours-là et dès l'instant qu'on c'est-à-dire lutter pour la pacification de l'espace universitaire. Ce que nous constatons, c'est que les résultats nous sont favorables maintenant. Les étudiants de l'UCAD dame le pion aux autres universités au niveau de ces concours-là, que ce soit douane, nous, commissariat police, euh, magistrature ou autres, les étudiants arrive à s'en sortir et à se remarquer. Et ça aussi, ça fait honneur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mm-hmm. qui reçoit des primes au niveau international. Et cela nous permet aussi, nous, en tant qu'étudiants, d'avoir des bourses mm-hmm. sur les grandes universités, euh, que ce soit occidentales, américaines ou autres, mm-hmm. pour nous permettre aussi de continuer nos recherches sur le plan scientifique. Et c'est pour cela que je dis, nous, notre rôle en premier, c'est d'étudier, mais aussi lutter pour la pacification de l'espace universel pour au grand bénéfice des étudiants. D'accord. Euh, êtes-vous d'avis euh, avec euh, des étudiants qui disent que lorsque la violence émane des amicales, euh, des sanctions sont prises, mais lorsqu'elles sont d'origine politique, il y a une impunité? Je dis, je suis, je suis je suis d'avis parce que <laughs> À chaque fois hein, que nous rencontrons les autorités, nous leur disons ça. Nous sommes désolés de voir quand des violences éclatent ou bien nous constatons des scènes de violence au niveau de l'espace universitaire dès l'instant que c'est un étudiant lambda ou bien un syndicaliste, des sanctions sont prises à, à l'encontre de ces étudiants-là. Les étudiants de la faculté de droit ont fait le frais, de même que les étudiants de la faculté de sciences. Certains ont écopé de 5 ans, certains ont été bannis de l'enseignement supérieur, d'autres 2 ans des nouveaux bacheliers. Alors que nous constatons aussi ces dernières années, comme je le dis tout le temps, où que je sois, et je la violence au sein de l'université est c'est-à-dire des étudiants politiciens ou bien des politiciens tout court qui créent de la violence au niveau de l'université. Et nous, nous appelons à la prise de responsabilité pour l'ensemble des autorités universitaires que nous, étudiants ou bien syndicalistes, si nous sommes auteurs et identifiés de violence, nous sommes sanctionnés. Nous demandons en ce que ces derniers soient identifiés et sanctionnés et aussi sachez de, du, du, du de l'espace universitaire. Parce que, c'est-à-dire, nous, le campus social, tout étudiant, tout étudiant régulièrement inscrit doit militer pour la pacification de l'espace et toute autre personne qui, que, soit, que vous soyez étudiant ou non étudiant, politicien ou non politicien, que vous, c'est-à-dire, euh, euh, comment je, je peux m'exprimer, c'est-à-dire vous bouleverser ou bien vous perturber la quiétude de l'espace universitaire, je me dis que ce dernier doit être sanctionné. Et ces politiques-là sont au, niveau de l'espace universitaire. Ils ont été instigateurs des violences au sein du campus. Ces derniers doivent être identifiés et que le conseil de discipline doit faire ce qu'il doit faire pour sanctionner ces derniers-là, pour que nous tous étudiants, qu'on puisse vivre en paix, en harmonie au sein du campus social. Hmm. Moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et je suis parfaitement d'accord avec ce dernier qui dit que les politiques ne sont pas sanctionnés. Seuls nous, étudiants ou bien syndicalistes, sont sanctionnés. Et ceci est anormal. Vous êtes politique, Non. Pour l'instant, je me dis que je suis pas Je ne fais partie d'aucun parti politique. Je me limite à mon syndicalisme parce que le charme du syndicalisme, c'est de pouvoir faire face aux politiques ou bien aux autorités. Aux autorités, peut-être ceux qui ne sont pas académiques sont politiques. Et dès l'instant que vous faites partie d'un parti politique, c'est-à-dire votre réflexion est biaisée. c'est-à-dire la manière de faire la politique au Sénégal c'est que comme ni ñu koy ni ñu koy waxee day mel ni sëriñ ak ndongo daaram bon, c'est le marabout et son, et son, et son talibé. Vous n'avez pas votre mot à dire. Alors que le syndicalisme demande de la liberté, raison pour laquelle nous, nous nous n'avons pas un engagement politique. Nous nous limitons à notre syndicalisme, mais demain, si toutefois nous terminons notre mandat, nous allons nous engager en politique parce que, quel que soit Alpha aussi, nous avons appris et nous pensons que nous avons apporté notre pierre à l'édifice qui est la construction de notre, pays. Le syndicalisme aussi mène à la politique. On a vu euh, Saurusen, Mamor bien d'autres syndicalistes qui sont devenus maintenant euh, des politiques. Euh, euh, d'après vous, quelle doit être la limite entre les études et la politique Bon, c'est un peu compliqué, hein? c'est un peu compliqué euh, par rapport aux études et, la politique, surtout en milieu universitaire. Peut-être si c'était dans les collèges ou autres, on pourrait le dire, parce que, quel que soit Alpha, il est très rare de voir un étudiant qui n'a pas 18 ans. Donc, euh, on a atteint la majorité et on est dans la capacité de pouvoir décider, c'est-à-dire aller voter. Et dès l'instant qu'on a cette capacité-là, je me dis, nous avons un jugement sur, sur la politique. Donc il est très difficile de faire la distinction de, entre les études et la politique, ou bien la personne en tant que telle et la politique. Parce que quel que soit Alpha, même si nous ne militons pas la politique ne se limite pas au militantisme. La politique, bon, c'est une, c'est l'art d'une manière générale de la gestion de la, de, de, la cité et que nous tous, nous avons notre mot à dire dans la gestion de la, de la cité. Euh, je pense qu'on ne peut pas dissocier les études et la politique parce que les études ça nous pousse à réfléchir et la politique c'est le quotidien c'est le quotidien donc je me dis il n'y a pas cette euh, différenciation qu'on peut faire entre la politique et, les études en, tant que telles Et comment jugez-vous euh, le comportement euh, de certains de vos camarades qui sont aujourd'hui très engagés dans ce domaine Bon, certains, des fois, bon, nous partageons le campus, des fois, il nous arrive de, de partager des débats. Bon, certains sont très pertinents et défendent, c'est-à-dire leurs convictions euh, politiques, ainsi de suite. Chacun croit à son, à son, à son leader. Mais bon, des fois aussi... Euh, des fois aussi, ils s'emportent, ils s'emportent et c'est ce qui les conduit des fois a créé des violences au niveau de l'espace des euh, bagarres, des bagarres ah, entre, entre militants, pouvoir oui, pouvoir et opposition entre militants, et c'est quelque chose que nous regrettons parce que selon nous, c'est-à-dire l'univers, c'est chacun peut avoir, c'est-à-dire peut, peut militer dans un parti politique mais ça, nous ne devons pas en arriver euh, à la main. C'est-à-dire, nous devons cultiver le débat d'idées, notre divergence. C'est ça qui, la divergence au niveau des arguments, c'est ça qui nous enrichit, c'est ça qui nous permet aussi, nous qui ne sommes pas engagés dans la, dans la politique, de pouvoir jauger les projets, de pouvoir comprendre, c'est-à-dire le projet, l'objectif de chaque parti politique. Mais dans la violence, je me dis, il n'y a pas de, il solution, euh, de savoir dans la violence parce que la violence est le propre de l'animal. C'est cet instinct animal-là qui est en l'homme, qui se réveille et qui nous pousse à arriver à la violence physique. Et c'est quelque chose que nous regrettons. Des fois, nous, essayons aussi autant que ça peut, à chaque fois qu'il y a ces échafaudés entre politiques, nous essayons, bon, parce que nous avons des étudiants qui sont du pouvoir, nous avons des étudiants qui sont de l'opposition. On permettre à tout un chacun de s'exprimer librement et d'éviter qu'ils en arrivent euh, aux mains.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 problèmes ont été pris en charge par les autorités. Est-ce que tout va bien Non, tout ne va pas bien, sincèrement parlant. Euh, on peut noter une accalmie parce que nous avons changé euh, le mode de lutte. Le mode de lutte, euh, nous, nous l'avons changé, le mode de la lutte, nous l'avons changé, mais nos problèmes ne sont pas réglés à chaque fois comme... Euh, les étudiants sont confrontés à des problèmes. Donc, il y a des problèmes, c'est-à-dire qui peuvent se régler en 10 minutes, 15 Cela peut être une question de l'eau, c'est-à-dire on peut manquer d'eau au niveau de, de l'université, on peut avoir des problèmes au niveau de nos chambres, on peut manquer d'amphithéâtre ou bien salle de TD et arriver qu'on, comment dirais-je, annule nos cours. Ce sont des problèmes qu'on règle sur le coup avec les autorités concernées. On n'a pas besoin de sortir ou bien de convoquer la presse pour en parler. Il y a des problèmes aussi où les autorités fonction des années. Mais cela ne dit nullement que nous n'avons plus de problème. C'est-à-dire, les moyens de lutte ont changé, mais les problèmes persistent toujours, que ça soit d'ordre social ou bien pédagogique au niveau de l'université. Et à chaque fois, nous essayons de nous atteler pour trouver des solutions Euh, définitive à ces problèmes. Mais les problèmes sont toujours au campus et l'accalmie ne signifie pas qu'il n'y a plus de problèmes au niveau de l'université. Sincèrement, il y a des problèmes à régler à l'université, des gros problèmes même. D'accord. Donc vous observez juste un temps de répit Nous y sommes, c'est-à-dire, nous y sommes, en train de trouver des solutions. Par exemple, la construction de ces nouveaux pavillons. L'année dernière, on avait un problème sur des travaux. Et on avait lancé les débats. Bon, on nous avait donné des délais et arrivé à ces délais. le problème n'était pas réglé. Nous avons jugé nécessaire de convoquer la presse. Nous avons fait un point de presse. Et dès l'instant qu'on a fait un point de presse, c'est-à-dire l'entrepreneur en charge de ces travaux-là a préféré délaisser un peu les autres et s'accélérer sur les sentiers, c'est-à-dire euh, prioritaire. Et vous pouvez prendre l'exemple si toutefois vous côtoyez l'université. À côté du pavillon en face de la direction, ces sentiers-là sont accélérés. Sont accélérés, ce qui permet d'ici peu de temps que nous allons réceptionner ces avant d'entamer la deuxième phase qui sera euh, réceptionnée du 6 décembre Pour vous dire que nous sommes en train de trouver des solutions au niveau de ces problèmes-là. Cela suit son cours. Mais bon, C'est-à-dire euh, ce qu'on constatait euh, ces dernières dernières à l'université n'est plus le cas. C'est-à-dire à chaque fois les étudiants sortaient faire la grève pour se faire entendre, euh, convoquer la presse, ainsi de suite. C'est-à-dire les moyens de lutte ont changé. On essaie d'épuiser les voies administratives avant d'en venir. Et ce qu'il faut saluer aussi, c'est la réceptivité des autorités universitaires. Parce que si toutefois nous leur soumettons là ils de diligenter, mettre à leurs équipes qui, pour qu'ils puissent trouver des solutions et régler ces problèmes définitivement. Et si on ne trouvait pas solution petit à petit à ces problèmes-là, c'est-à-dire euh, cela, cela allait nous conduire à soit convoquer à la presse ou bien euh, aller à ce que nous ne voulons pas faire, qui est descendre sur l'avenir chez Ante de Dakar. Mm-hmm. Donc, euh, ces problèmes sont en train d'être solutionnés petit à petit. sont des problèmes ponctuels qui sont solutionnés d'une manière ponctuelle, des problèmes à long terme que nous assommons les délais. Une fois les échéances terminées et que ce problème-là, ces problèmes ne sont pas solutionnés, peut-être vous entendrez les étudiants. Mm-hmm. D'accord. Euh, les études dans de très bonne qualité, de très bonne qualité. <laughs> Bon, je ne dirais pas de très bonne qualité, mais nous avons de bons professeurs, nous avons de bons savants, c'est-à-dire euh, des grands, des ténors dans l'enseignement supérieur, mais l'étudiant n'est toujours pas dans les conditions optimales qui lui permettraient de pouvoir assimiler ces, ces, ces, ce savoir-là, ce savoir qu'essaient de nous transmettre ces, professeurs. Cela va à la c'est-à-dire euh, à la quiétude de l'étudiant sur le plan social ce pouvoir se prendre, se prendre en charge, avoir une bonne bourse, c'est-à-dire euh, l'ensemble de ses charges financières, pouvoir les régler, avoir de quoi, avoir une, c'est-à-dire un bon cadre de vie pour pouvoir étudier, que ce soit les amphithéâtres, la mise à disposition des ressources nécessaires à, à sa réussite sur le plan pédagogique. Tous ces éléments-là, on peut les noter sur 5, sur 10 et beaucoup reste à faire, reste à améliorer. Certes, nous avons de bons des agrégats obligations ou bien des articles ou bien des prix qu'il gagne d'année en année. Mais l'étudiant, c'est l'étudiant. Le problème, c'est au niveau de l'étudiant qui n'est pas mis dans, les conditions euh, optimales pour pouvoir assimiler, cette, connaissance-là. Et je pense que nous tous, autant que nous sommes en tant que l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'enseignement supérieur, devraient, comme euh, je le disais tantôt, se réunir, en parler et essayer de mettre l'étudiant sur des conditions optimales qui lui permettraient d'assimiler cette savoir contre nos professeurs. D'accord. Euh, plusieurs euh, étudiants aujourd'hui euh, s'adonnent pratiquement au petit commerce et afin de subvenir à leurs besoins, cela ne risque-t-il pas, selon vous, de saper à leurs études et à penser que l'État n'aide pas suffisamment les étudiants je me dis hein, non, carrément, c'est nous avons, nous devons même inviter les étudiants à s'adonner à ces activités économiques là. Mmh. Moi, à ma première année, on m'appelait Africa Market parce que je m'adonnais à ces petits commerces-là. Et je continue, je continue toujours à, à le faire, mais peut-être autrement, avec d'autres business. Et il y a même un statut d'étudiant entrepreneur qui est créé. C'est-à-dire l'étudiant entrepreneur peut ne pas faire ses cours et être autorisé à faire son business ou autre là. Il cette autorisation d'étudiant entrepreneur. Donc nous devons pousser les étudiants à entreprendre. Ça va nous permettre une insertion facile une fois euh, avoir terminé nos, nos, nos, études. Et ces petits commerces aussi sont dus, c'est-à-dire euh, aux problèmes sociaux que confrontés les, les, les étudiants mmh. qui viennent de contrées lointaines et qui, qui n'ont pas leur bourse et qui n'arrivent pas à se prendre en charge. la bourse n'est pas assez. sincèrement, francs si vous envoyez à la famille 10 000, 15 Bon, acheter des tickets, il vous sera très difficile, surtout les filles qui doivent se prendre en charge d'une manière mensuelle aussi par rapport à leur santé intime. Mm-hmm. Donc c'est très difficile, ce sont des choses, euh, c'est-à-dire les étudiants sont confrontés à des situations très difficiles et ces derniers-là, c'est pour cela qu'ils s'adonnent à des petits commerces sur WhatsApp, la vente en ligne ou, ou, autre. Et je pense qu'ils doivent être accompagnés mm-hmm. et l'État aussi accompagner davantage ces étudiants par le biais de l'augmentation de la bourse et pour permettre à ces étudiants-là de se prendre en charge. Mais moi, personnellement, je me dis, l'étudiant doit s'adonner à l'entrepreneuriat, celui ce qui va lui permettre d'avoir une bonne insertion ou bien de pouvoir s'insérer, mais avoir aussi une vision globale aussi du fonctionnement de la vie professionnelle. C'est important. Mm. Et nous devons motiver ces étudiants à le faire à chaque fois. Mmh, d'accord. Et selon euh, les diplômes universitaires sont-ils toujours gages de réussite euh, et, d'intégration facile dans le monde professionnel Vous savez qu'il y a un problème d'employabilité au Sénégal. L'insertion professionnelle pose problème. On peut avoir l'ensemble des diplômes, c'est-à-dire nous avons de bons diplômes à, à, à l'UCAD, je peux dire, et sur plusieurs établissements publics au Sénégal. Nous faisons de très bonnes formations, on dispense beaucoup cours, nous sommes de grands chercheurs. Si toutefois vous pouvez constater ça, que ce soit nos camarades ou bien les gens qui sortent du Sénégal et pourraient terminer, aller terminer leurs études en Europe, que ce soit France ou autre, c'est-à-dire ils excellent dans leur zone, ils donnent le pion à ces étudiants mm-hmm. là-bas. Donc, l'enseignement est, est, est, très riche, mais c'est ce problème-là, l'insertion professionnelle qui pose, qui pose c'est la difficulté que nous avons. c'est-à-dire l'insertion, vous terminez votre, votre formation après 3 ans ou bien 5 ans. Une fois dans les entreprises, ils vous demandent une expérience de 5 ans. Vous venez de terminer 5 ans d'études. Peut-être l'expérience que vous avez eue, ce sont les stages que vous avez fait pendant 3 mois. Mais ces stages cumulés-là ne fait pas un an d'expérience. Donc, au niveau des appels d'offres, le privé, bon, c'est-à-dire ils sont libres à faire. les conditions pour permettre à ces nouveaux diplômés-là de c'est-à-dire euh, d'avoir cette, cette ou bien euh, au niveau au niveau de la vie professionnelle certes moi je ne crois pas c'est-à-dire euh, euh c'est-à-dire euh, que ça soit le recrutement ou autre ça ne règle pas le problème c'est-à-dire il faut aider les gens à créer des mm. emplois C'est ce qui permet d'absorber le nombre diplômé. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont porteurs de projets, qui soumissionnent au niveau, que ce soit la DER, NPJ ou autre. Mais je pense que nous devons avoir ce statut spécifique-là d'aider des étudiants, avoir une structure qui est spécifiquement dédiée à des étudiants qui sortent fraîchement les nouveaux diplômés ou autres, pour les accompagner dans, le, dans leur projet euh, de, euh, sur le plan professionnel. en leur permettant de créer des entreprises, en leur permettant aussi de pouvoir trouver du financement au niveau des banques ou bien des organisations internationales qui appuient, qui appuient ces, ces Sincèrement, je pense que l'État doit travailler ça, essayer de de créer un cadre qui permettrait aux nouveaux diplômés de pouvoir soit s'insérer ou bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, dans ce cas, selon vous, euh, donc est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de revoir euh, la formation effectivement, c'est l'enseignement, commençant au primaire jusqu'en doctorant, qui devait être revu. C'est-à-dire, l'enseignement général, pour moi, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire, je suis euh, de, de, la primaire CI jusqu'en euh, cinquième année université, j'ai pas de métier. J'ai pas été formé dans un métier bien précis. Alors que si toutefois on orientait l'enseignement vers des métiers professionnels, que ça soit menuiserie l'électricien c'est-à-dire un responsable Euh, euh, c'est-à-dire euh, un responsable de ressources humaines. Tout ça, dès l'instant qu'on obtient euh, notre BFM, qu'on soit orienté dans ces métiers-là, qu'on suit nos cours, cela nous permettrait d'avoir des diplômes qualifiants. Et si toutefois nous ne sommes pas recrutés, on va essayer soit de sortir du pays, mais aussi soit de créer un business, une entreprise qui nous permettrait aussi de réussir par soi-même. Et je pense que c'est l'enseignement d'une manière générale qui devait être euh, qu'on devrait on devrait réfléchir sur l'enseignement d'ordre général, essayer de réorienter former les étudiants sur des métiers professionnels mm-hmm. et aussi bon de limiter l'enseignement académique d'ordre général qui n'aboutit pas en métier parce que si vous êtes dans l'enseignement général vous êtes obligé après avoir terminé votre licence ou bien de votre d'aller faire une autre formation de deux ans pour pouvoir avoir un diplôme professionnel et sincère. Et être opérationnel. C'est très difficile. Alors qu'on peut être opérationnel dès l'obtention de notre bac, ou bien on peut être opérationnel dès l'obtention de notre licence, ainsi de suite. Certes, il y a beaucoup de, que ce soit BTS, euh, qui sont créés, mais l'université d'une manière générale doit aller dans, dans, dans la qualification et non pas dans l'enseignement général. D'accord. Euh, vos conditions d'études, euh, M. Ndoye, semblent s'améliorer avec le nouveau visage euh, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Euh, quels commentaires vous en faites Aujourd'hui, l'université, euh, c'est c'est tellement joli quand tu passes. Euh, <laughs> voilà. <laughs> oui, euh, bon, sincèrement, nous félicitons les autorités universitaires euh, pour l'ensemble des projets qu'ils sont en train d'effectuer pour l'amélioration de notre cadre de vie. C'est important, c'est important. Le cadre de vie aussi, euh, c'est très important. Mais ça, c'est la forme. Mais le fond, je pense qu'il est plus saillant. Et il va falloir que si toutefois qu'ils terminent d'embellir nos universités, qu'ils s'attaquent au problème du fond, c'est-à-dire cest la racine de ces problèmes-là, qui est la construction d'amphithéâtres, l'équipement de nos laboratoires, la prise en charge sur le plan social des, des étudiants. Ça, c'est le fond. Mais sincèrement, nous leur félicitons et je pense que... Euh, grâce à leur, euh, aux efforts qu'ils sont en train de fournir, euh, c'est-à-dire euh, l'université commence à gagner des prix sur le plan international et autres, que ça soit des ISO que nous avons sur le plan environnemental, mais des distinctions académiques que nous avons sur le plan international et l'université qui gagne des rangs au niveau du classement des universités francophones, qui est aujourd'hui la première université francophone. Donc, euh, nous nous réussissons, de, des efforts qu'ils sont en train de fournir, mais aussi nous les appelons aussi à s'attaquer au fond du problème, qui est d'offrir un cadre optimal à, l'étudiant pour réussir ses études. Mm-hmm. Euh, collectif des amicales. Euh, quel est actuellement Bon, mon cri de cœur euh, en tant que membre du collectif euh, des amicales de, de, de l'UCAT, et je pense que depuis deux ans, nous essayons d'appeler les autorités universitaires à encore y parce qu'il y a un décret qui organise le fonctionnement de l'université qui a été sorti. Et ce décret-là, les étudiants n'ont pas été associés. Et depuis deux ans, les étudiants ont décidé d'adopter une politique de chaises vides au niveau du conseil d'administration de l'UCAT. Parce que, certes, les étudiants ont été conviés, mais les modalités, les modalités de convocation de ces derniers, les étudiants ne s'y retrouvent pas. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, l'université tout réunit 80 000 étudiants qui ont élu des représentants d'étudiants qui se regroupent dans un collectif. Vous ne pouvez pas mettre de côté tout ça et convoquer d'autres étudiants en fonction des niveaux qui pourraient représenter ces derniers au niveau du conseil d'administration. Nous avons été élus par nos pères, nous représentons nos pères et nous jugeons nécessaire de représenter au cours de notre mandat nos pères là où le besoin se fera pendant tout, tout notre mandat. C'est-à-dire les autorités n'ont pas le droit de décider qui représente les étudiants. C'est aux étudiants qui est passé par le ministère, nous n'avons pas été associés. Et nous demandons à ces autorités-là de réfléchir sur ce décret parce que cela peut être source de problèmes au niveau de l'université bientôt. Ça, c'est un, c'est un cri de cœur que nous, que nous lançons et aussi nous appelons aussi euh, les étudiants à plus de tenue et de retenue par rapport euh, à tout ce qui se passe au niveau euh, le territoire national. Nous appelons à la paix, à la pacification de l'espace universel, tout un chacun pour exprimer son point de vue. Euh, dans la liberté, hein, je me dis, aucun étudiant doit contraindre un autre étudiant pour lui dire que tu ne dois pas faire ça ou ça. Chacun a le droit de parler, de manifester ou autre, mais dans le respect strict des droits des étudiants. C'est ce que je voulais dire d'une manière générale à la communauté étudiante. Une dernière euh, question, parce que euh, vous êtes, euh, faites partie du collectif des amicales. on vous taxe souvent, vous les, vous de corrompus. Mm -hmm. Qu'avez-vous à dire c'est un jugement de valeur. Hein. C'est un, un, jugement de, valeur. Quel soit Alpha, chacun d'entre nous se bat pour des principes. Mm-hmm. Et des fois, l'étudiant, vous pouvez le défendre pendant 12 mois. Et s'il a un problème, par exemple, pendant un mois et que vous tardez à régler ce problème la mmh. il peut vous taxer de corrompu. C'est le Sénégalais 6 qui est comme ça. Et chacun d'entre nous se bat pour des principes et je pense qu'il a été élu pour des principes. le collectif qui vient de sortir là, le collectif, bon, je faisais partie du collectif qui vient de sortir, le nouveau collectif qui va arriver aussi, les autres vont nous rejoindre, mais je connais des hommes de valeur, des gens qui se sont toujours battus pour l'intérêt exclusif des étudiants. Et moi, personnellement, personnellement, je parle de ma personne, de ma personne. Et ceux avec qui je travaille, je n'ai jamais vu personne être corrompu pour quoi que ce soit ou bien vendre le combat des étudiants. personnellement et je crois c'est-à-dire ku nekk nag comme ni ñu ko waxee coow ku nekk yaa xam la ngay def feneen mm-hmm. mais le collectif en tant que tel le collectif en tant que tel moi qui faisais partie du collectif sortant et de ce collectif là je peux m'en porter garant et les autorités universelles aussi nous connaissent ils n'osent même pas nous appeler à certaines choses ou bien nous demander certaines choses on nous taxe des fois même de compliqué donc euh, des jugements de valeur moom chacun en aura et bon Peut-être euh, euh, l'avenir est devant nous et nous sommes appelés aussi à diriger demain, raison pour laquelle nous, nous nous évitons à tremper sur certaines choses qui pourraient ternir notre, image. Mais sur l'ensemble de ces étudiants-là qui parlent, moi je défie quiconque. Mmh. S'ils ont un petit bout de preuve, ils n'ont qu'à le montrer parce qu'il est facile d'accuser les gens, de parler dans le vide, dans l'air, ainsi de suite. Mais il faut apporter des preuves si toutefois vous avez surpris un étudiant ou vous avez vu d'une manière avérée qu'un étudiant faisant partie du collectif a été corrompu, bon, il faut faire des révélations. Nous avons même les réseaux sociaux. Ils peuvent révéler ça sur les réseaux sociaux avec les preuves. Et ces derniers aussi, peut-être, les amicales devront prendre leurs responsabilités et des sanctions envers ces derniers. C'est ça. Vous savez, chaque homme à son prix. On a vu euh, des étudiants les plus tenaces qui étaient toujours au devant des grèves mm-hmm. euh, être amenés en France dans les, dans les grandes universités. Il y a des étudiants qui acceptent cela. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est la fin euh, de cette émission déjà. Votre mot de la fin. Vous avez terminé de dire qu'il y a des étudiants, certains sont corrompus, et de suite, amenés dans les grandes universités. Vous savez, dès l'instant, dès l'instant, cest dire les prescriptions, c'est très facile. c'est très facile d'avoir une prescription. Peut-être ce qui est difficile, une acceptation au niveau des universités, c'est la prise en charge, la garantie qui pose problème, ainsi de suite. Mais ces derniers-là, ces étudiants qui excellent dans les études peuvent avoir des prescriptions. Ce que nous constatons, des étudiants qui terminent leur mandat ou bien qui syndiqués au cours d'année, qui partent en France aller faire faire études à l'extérieur extérieur. a pas de problème à cela. Cela n'empêche en rien d'avoir des principes sur le combat que nous menons à, à, à chaque fois. Et j'appelle aux étudiants d'arrêter ces jugements de valeur envers ce, le collectif des amicales de l'UCAD parce que de source sûre, moi personnellement, peut-être on avait certains jugements avant d'entrer dans le collectif, mais une fois dans le collectif, vous saurez qu'il est très difficile de satisfaire les étudiants. Il est très très difficile et je suis ouais, C'est euh, Très très très très surtout la communauté étudiante, c'est une masse très critique. C'est une masse très critique qui est bien réfléchie, mais bon. yàlla baax na comme on dit peut-être euh, Allah subhanahu wa taala va nous accompagner et je vous remercie pour terminer de nous avoir euh, conviés et euh, un moment aussi pour nous de remercier l'ensemble des délégués qui nous accompagnent de jour en jour sur notre travail mais aussi la communauté estudiantine aussi qui nous écoute et qui a porté le choix sur nos modestes personnes pour les représenter remercier l'ensemble de vos auditeurs et vous aussi de nous avoir invité à ce moment d'échange-là qui nous permettrait, qui est une vitrine aussi pour nous pouvoir exposer les problèmes des étudiants, mais aussi le travail que nous sommes en train d'abattre au niveau des universités sénégalaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahim Ndoy, euh, coordonnateur des écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, euh, membre du collectif des amicales de l'UCAD. Merci. Euh, merci aux auditeurs qui et Bachir la mise mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.